bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah internet yi Les Arènes TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen ah. fu ngeen mën a nekk rek si àddina bi ma fekkook Abou Ndour li tax nag tey jotaay bi am yaakaar naa ne war ngeen ko xam mooy jataayu làmb lay doon saa yoo ngeen ko gisee mais tamit des fois dafay am lu nga xam ne bu xewee ci làmb day laaj ñu toog waxtaan si jàngat ma laaj ci abu mu tontu joxe xalaatam ñu xool yenn mbokk internet ban appréciation ngeen di am yaakaar naa nag saa yu ñu ko defee di ngeen ci am leen neex parce que li tax mooy ki ñuy laaj yaakaar naa li ñu koy laaj am na lu mu ci maîtriser te itam loolu dina neex ci yow mi dégloo ko seetaan nga gis lu mel ni ki noonu abu laa feggool ma bàyyi ko mu nuyoo parce que mbir mi eh, balaa mu nuyoo maa ngi jégul balaa mu nuyoo mooy ku ne gis na signature contrat bi am bi ci TFM doxoon ci diggante Tapha Tine les géants di Bawol ak Eumeu Sène ancien roi des arènes doomu Pikine mu nekk loo xam ne yaakaar naa démb ah lamb ja saf na làmb wala signature ba saf na signature ndax la fa Baye Ndiaye dajale woon ñu koy nuyu borom Alburax Events mais Abu balaa ñoo yegg ci loolu di Sara mu nuyu la ziar la. maa ngi lay delloo nuyu di la delloo ziar di la wax na mën naa lool gën ñoo pépé lool <laughs> waaw waaw waaw waaw mhm. nuyu mbokku internet ñëpp di leen di leen nuyu di leen tatagal di leen wax ñuy gën a yokk abonnement yi waaw incha allah waaw. Hmm. dina si baax mais nag maa ngi jël dafa xaw a dëkk bi xaw a tàng rek yaa ma gën a xam mais internet yi li ma leen wax sànq rek moo ci nekk li waral jotaay bi lenn la wala yenn la sax mais bii da cee gën a fës waaye balaa ñoo sori am na loo xam tamit am na fi ci weekend bi ndax ku ne xam na ne suñu papa Manga 2 tegoon na 3 millions ci gaal gi. yaa ngi dégg xale bi ñuy wax Toubacouta jël ko ci kaw usine technique waaye fa nga xamal ne moo doon ca France avant dimanche jë Bombardier ji jongante na fa MMA gagné mel ni loolu lépp am na ci weekend bi lambu dur tamit sax amoon na démb arène national yooyu yëpp amoon na waaye nag toppaloon nañ leen gaal gi la fa xew yëpp war nañ leen ko démb amuñu tamit yaakaar naa mu ngoon gaal ga signature ba tamit man maa nga foon commencement ba ni mu jeexee abu balaa maa sori rek ma ñëw ak yow ci ji ak MMA bi mu mel ni marqué waat na beneen victoire am bërki dem victoire boo xam ne mën naa ne man Babacar ah euh, waaw sonn ci coono bu metti daal. waaw am na solo et boobu mooy cinquième victoire am en en six en six combats MMA boo xoolee ñoom euh, Rocky Balboa ñoom Daniel Padmore ñoom euh, ret bi démb mooy Peretina naka Pere Pereti. Tino donc euh, muy 5 5 en tout cas 5 victoire yu mu am contre nag benn kaw bi nga xam ne Burzanowski moo ko moo ko moo ko dooroon mu mu daanu mais vraiment ñu ngi koy euh, tatagal donte nag ki mu doon am c'est vrai que de carrière red boobu mm. waaw 30 de carrière nekk quand même mais quand même une victoire reste une victoire Bombardier te ni ni mu ko waxee xam nga am na lu ci njëkkoon kii mooy ñu mu waroon àndal ñoom Franc ñoom Tafaati ñoom Laurent te yàlla dogal mujj ñu am ay ay visa moom ni waxoon na ne dafay bëreel ñëpp vraiment bi muy bi ñu ko jot man avant combat bi nee na man ñëpp laay bëreel Sénégal laay bëreel ñooñu ñëwul maa ngi di bëriwaale kon da mel na ne ñoom ñëpp ñoo am ndam ñoom Tafaati ñoom Franc ñoom Laurent ñoo am ndam waa Sénégal ñëpp am ndam mbëru Sénégal yëpp am ndam ñu ngi koy félicité moom Bombardier mmh. macha allah Bombardier mais li ma ci seetlu keram muy lu rafet moo taxawaayu Gris Bordeaux en tant que frère sénégalais mais en tant que mbokku yaa ngi dégg Père euh, Tafa Gueye tamit dégg nañ ko ci reportage bi muy mu mel ni ki Bombardier Kera ak ñoom Mohamed Ali Ndiaye ñu ngi bi mu demee ne bu yor ko a marqué nit ñi mooy bu Gris Bordeaux. waaw parce que Gris dafa dafa dem pour waajale combat contre Ama Baldé ku ne xam donc préparé combat moo ko bu France. Mm. mais nee bi mu mais bi mu xamee ne. buñ ne MMA nekkatul diw ak diw Gris Bordeaux na nga mais Bombardier yore raaya Sénégal la preuve bi mu gagné drapeau Sénégal la euh, la rango di di wër di di fete mooy Gris sax ñoo na ba jël ko nuyu ko yëkkati ko noonu moom ndax mu yëkkati ko muy lu rafet ñu siy nuyu nag au passage Gris Bordeaux ndax bu ko bu ko neexoon it ne maa nga fa waaye dama da dama dama ñëw pour liggéey bañ a déplacé wu parce que nee na à cent kilomètres la la la nekk. fi mu nekk ak foofu 300 kilomètres la waaye teewul bàyyi na léppam vraiment vraiment ñëw fekk ko hôtel hôtel ak yëpp gis nañ image hôtel beeg lépp ñoo ñoo ñoo nekkoon car bi ñoo bokk car ñoom Tafa Gueye Mamadou Ali Ndiaye Tafa Gueye gis nga ko solo ba jekk car macha allah solo solo rafet. benn noir blanc bu rafet waa gis nga dem si eh, commentaire yi ñu dafa mel ni moo toogaloon Eric Favre foofu si Eric Favre TV bi moo fa nekkoon moom ak euh, Sénégal nu tubaab bi tubaab bi waaw. ki ki ki nekkoon euh, waaw tubaab bi doon ñëw fii doon entraîné ñoom ta mu seen doon dem ndakaaru tur bi lay fàtte rek. waa Ndamali voilà Ndamali loolu moom laa dégg dafa mel ni baatam laa dégg moo fa nekkoon moom ëmmati mu mu tafaatin kii tafaagee mu nekk lu rafet waaye daal gàcce ngalaama euh, ba ma jee set waaye nag gàcce ngalaama Gris Bordeaux ci geste boobu mu def defal ko mbër yëpp. am na solo mais abu mu mel ni démb tamit lamb ji yëngutu woon na rawatina lamb simple ji ca at ca terrain gaal gi manque deux ni fa 3 millions bi mu ko tegee sax ñu bëri ñu ngi doon dute ndax man ba démb ci bëccëg rek daje ak ay nit ñu naan est ce ay mbër est ce que dina am nit mais bi ma ñëwee tim ci làmb ji pour dugg ci làmb ji rek c' est tout un problème ndax mbooloo mu bëri. làmb ji am na mbooloo xam nga nag duñu Babacar boo lamb su ba amee mbooloo de day rafet gis nga géew géew bu bëree mbooloo dafay rafet géew bi dafa rafetul vraiment nit ñi ñëw nañu see euh, wuyu si Manga mbëri aussi cent y avait cent quinze mbër parce que 32 raw gàddu 64 ci tànk yi 19 si li nga xam ne mooy poids lourd muy 115 ci moment bi kenn kenn yaakaaru ko woon euh, kenn yaakaaru ko woon kenn yaakaar moom mu nekk loo xam ne nag ñi ñëpp ñëw boo xoolee nag euh, du guléet xam nga tafa Manga 2 2009 2010 déjà depuis 2010 mu mu fa tegoon 3 journées waaw ah, benn bi Ansu Ndour a ko jël benn bi Isine Doole ko jël benn bi Babacar maa ngi doog Babacar ma ko jël pour wax la ne yàgg na fa du fa gat moom maa nga dëgg waaye xam na gaal bu baax waaye ki ki mu tuddee woon làmb ji muy Alpha Sam ku ne xam na ko moom it meeru ngeen ñeen yàgg tëgg moom ndax nee na démb ne Léopard nee na maire la certes waaye mu ngi ñëwaat nañ ko xaar mu mu solaat mbubu mbubu promoteur tëgg na fi presque ñi fi ndëkk tëgg tëgg mise yu mag yu mag si la bokk moom Alpha vraiment moom tam tëgg fi ay ay événement waaye Mbayang Loum 2013 la la fa la fa dikk. mbingaan waa mbingaan sañ jël ko waaw mbingaan njëkk a foofu indi mënut a xam nga kon kooku mu ngi di 10 ans kon kon kooku kon kooku it xam na ñàkkul mbingaan gi kenn moo fa nekkoon gan mooy mooy Palo Palo mooy la première fois mu doon ñëw Palo nag mu fa ñëw donte mu ngi ñëw Dakar depuis daaw arène euh, adressé ngoon mais foofu mu ngi daan ñëw waaye gis nga mën soo mënee rek dafa mën tëgg car macha allah tëgg bi et puis dafa am vraiment communion naka complicité bu am ak ak Mbayang maanaam dafa neex waaw ñu ngi koy ñu ngi koy félicité moom vraiment di félicité maa ci euh, li mu may kii bi vraiment waaw spectacle bi mbëri itam ñoo nañu bëre gis nga gis nga euh, njool euh, bu sànn ak ak gànja faama bu métti kii nekkoon dënn biñ biñ biñ biñ dawee ju jubal si si si Mbayang Loum të tëkkante bi am kii daan naa ko 10 kii ne nii nangam yàlla def huitième de finale ñoom ñoo daje waaye gànja faama moo ko daan gaañafa moom rakki Jordan ñu naan ko Ousseynou Dieng rakki Jordan bu bu moo ko daan rakki Jordan bu bu Mbour Jordan waaw rakkam rakkam moo ko voilà moo Ousseynou Dieng voilà rakkam a ko daan gis nga euh, luur itam gis nga euh, usine doole abutin ñu naan ko usine usine technique moom moom moo daan sosox moom moo daan moo euh, moo daan Boy Faye waaye Toubacouta tamit moom moo daan rajaxe final it mu dajeeg Abdou Tine daan ko mu nekk ay combat yu neex vraiment ñu leen di félicité waa ñoom ñëpp. am na solo mu mel ni kon dém gaal gi yëngatu woon na macha allah ñuy félicité lépp li fa xewoon ak ña ko fa tëggoon suñu père Manga di ko félicité di félicité parrain bi muy Alpha Samb meeru Ngéñeen mais abu nag yaakaar naa dem bañ jógee foofu dañu prononcé ak benn face to face boo xam ne yaakaar naa démb Sénégal yëpp seetaan nañ ko à travers TFM ak site internet yu ko doon direct mu mel ni euh, démb diggante euh, Tapha Tine Eumeu Sène ak combat yi ci aju abu dem face to face bi nga seetaan est-ce que gëjoo seetaan face to face bu mel noonu. dëgg dëgg du pour jeter fële kenn mais ils ont réussi un grand coup et puis face to face bu ànd ak ay acapella ay ay ay ay woy ay et puis du n'importe qui moo fa jóg. Pape Diouf ñëw teew. Titi ñëw teew. xale bi parcelle ñëw teew. waaw loolu vraiment nekk na loo xam ne am et puis combat yi bu la nee Kewel euh, ak ak ak Albouri ñu ne la Wuli ak ak ak ak ak ak ak Bouger ñu ñëw teg ci ne ne la Marley ak Mbay Guy gi mais yooyu journée boobu journée bu neex a neex a neex la ñu ngi leen di félicité tamit journée da nga koy am na ñoo xam ne dañuy defar journée rek xool grand combat mu neex rek parce que amoo seen tabatin dafa doy. boo fa indi woon ñoom yaaw jaan sax c'est sûr que dañuy dañuy dem stade parce que combat amateur la comme ni ko gars yi di waxee donc loolu dafa mais nga boole ñëw ñëpp loolu mooy wane ne euh, journée bu neex a neex la face à face lool jaar yoon def seen mënin bu xam nga wulli ba ak ak ak ak ak Ketchup ba kenn kenn benn face à face du ko dàq waaye waaye euh, kii ba Albouri ba tamit ak Kewel non boobu tam beneen affaire la neex na lool te gis nga it Marley ñëw mer gaynde mer la fanaanoo gis nga mook mbay guy gi wax na fa wax mbay guy gi wax yu métti te mbay guy gi ne ko bu bu ñu bu ñuy arbitre bu arbitre sifflé ma lay daan nekk yoo xam ne non dafa neexoon face à face bi dafa làmbe dafa guddee man ñëw moon sur place mais yéen ñi maa ngi ko nag en mais xam naa yéen ñi fa nekkoon ndax certainement yéegu leen déedéet yéegu leen guddee bi parce que dafa neex et puis affaire làmb la daal làmb la woon ñu ngi leen di félicité félicité alburax moom tamit boo rewul dara ak wax waaw vraiment bàyyi itam def naa yaa ko koy wax loolu nga ko wax lu lu am la man maa ngi ko maa lu am la moom boolewul dara ak wax te mu ngi liggéey parce que lii liggéey la ah. liggéey bi boo ko liggéey bu bu bu ñu togg moom boo ko togg mën nañ mën nañ waaye bu ñoree ba ñu ñam rek xam ne xam ne togg nga donc li ñu gis dem parce que démb euh, loolu nga wax noonu yaakaar naa ne ñam fa dajale. woyu làmb ñu ko woyee ñëpp ne gongo Pape Diouf gis nga góor day am doole ni mu ko defee yaa am sam waay képp kuy mbër waxuma sax ku dul mbër mais góor ñëpp fi mu ne ñu ngi ci gis nañ ci seen bopp ñu ngi doole. est muy waykat boo xam ne kenn du ko présenté Sénégal titi gis nga démb ba mu yuuxoog baatam Moussa juuf ñëw awu ko ku toog di seetaan doo bëgg Moussa Diouf tamit nekk ndaanaam ah xale parcelle bi nga xam ne daa xew ci jamono euh, turba way rëcc muy xale bu mën a xale bu saf xorom ah naajo Ibro naajo maa ngi koy bëggee Ibro naajo Ibro naajo parce que la dëkk moom it fan yi mu yëngu di yëngal mm, ñu ne de ne waay ñu indil la mbayang lum comme na ma ko waxee dem ak moomoo ngom nga xam ne ñooñu tamit ñoo yëngal sa diitu mbëri ñoom tamit mu mel ni kon bàyyi comme li ma waxoon rek moo ci nekk en wuñ koy fëlëra mais loolu constat bu def la parce que ànd nañu ak moom da nga gis ne day taxawe ne mm. mais dem bi mu waree présenté wu taxaw toog toog na mais bi mu toogee itam ku ne gis na nekk démb wax dëgg yàlla ku ñëw fee wala nga seetaan dund nga làmb abu et puis gisal ñoom mag sa fa nekkoon Assane Ndiaye promoteur ñoom euh, Bour Xarwaat maanaam euh, Sourou Fall mbay mbaa làmb ñëpp ñëpp fa nekkoon donc gàcce ngalaama ñu doon ñaan daal en tout seenu si journée bi yàlla na leen ko yàlla defal defal leen tax lu kawee seen ñu réussir ko parce que loolu mooy intérêt làmb mooy intérêt mbëri mooy intérêt làmb mooy tamit tax ñoom ne seen gannaaw di sponsor yi gàcce ngalaama bu doon ñoom lu bëri du duñ ko mën waaye mooy tax ñoom ñu gën a sawar sponsor tam mën ci gis seen bopp vraiment télé bi ñu si ñëw si muy TFM fi ñu ngi koy félicité yeneen yi ñu wax ne ñu ngi ñëw quand même jamaïcain euh, nga fa Bombardier Reug Reug annoncé Bombardier Reug Reug Ibrahima Diop na loolu boo ko amee mooy kar kar macha allah donc vraiment gàcce da ngay da am ñu leen di félicité bu baax vraiment ci nuyu suñu grand Lamine Samba moom tamit ku yaatul la te yaatale ndax su ko neexoon abu ñun ñii bu ñëwee dañuy jël lanu la ñuy jël ak sunuy micro dem ñibbi mais nag wax dëgg yàlla saa bu ñu fa ñëwee mu jox ñu micro présenté la ay combat te loolu lépp yaakaar naa ne yaatal la tamit quoi te su ko neexoon du ko defaan Lamine Samba. xale yi xew si jamono la boo nee Babacar Diop a arènes ne Lamine Lutte bi teg si euh, Fadam Tou l'expert teg si le lambologue euh, Bour Guewel ak ba si ñoom Fatma Dia ak kii Baye Balla euh, ki nekk Gafa production Modou Anta mais vraiment mais mais loolooy loolooy làmb léegi mënoo ta wax làmb bàyyi ñooñu loolu tamit bu ko amee ay ouverture d'esprit indi loolu dañ ciy kontaan parce que bépp reporter bu ci waxul keroog it da ngay jàpp ne wax nga parce que ñi ñi ñu wax ñoo la yóbbaale loolu tam am na solo daal di diversifier affaire yi wane ku nekk ku nekk indi toucham loolu tam dafa am solo waaw dafa am solo am na solo mais fi may jeexal ak yow abu mooy ñaari mbër yi mag yi nag Tapha Tine Eumeu a au début dañu calmer mais dañu dem bi Lamine jógee wax woo leen ñu ñëw taxaw lamin maa ngi koy nuy Lamine Lutte TV bi mu jógee taxaw woo leen bi Lamine waxee ak Tafa wax ak Eumeu Tafa ak Eumeu dama gis ne sur le dañu saas dañu tàng tàng ba boo xoolee ñaq yi commencé nag jóg baat kaddu yi jóg neer yi jóg. man kay jóg boobu jaaxal na ma. jóg boobu ñoom ñaar liñ doon. laa ma sante di waaw yëpp keroog démb moom dañoo jóg jóg bu doy waar parce que Eumeu Sène Eumeu Sène bu nee Njogoy ne. Njogoy ne Njogoy ne Ngom. Njogoy ne Ngom te Eumeu Sène dafa bëgg làmbu defi na na Tapha Tine def nag. Eumeu ah. Sène dafa am lu mu àndal parce que heure boobu bu taxawee di di ñàkk. et puis kay moom ak loo mën dëgg la nag du xale et tout ça mais liggéey na waaw fooyewul combat bi de dafa liggéey de. Hmm? ngay xool nga xam ne ay ay muscle nga ngay gis ci ci Eumeu waaw ay ay kon yow gis nga loxo yi gis naa gis naa loxo yi gis naa loxo yi gis naa loxo yi maanaam Eumeu Sène mu sax noonu noonu la bindee waaye rawatina nag bu liggéeyee correctement li mu war a liggéey dafa am lu mu indi waaye kenn du Tapha Tine am na taxawaayu mbër ah. boo ko xoolee xam ne mbër a mbër ngi nii fas na kanam nga te ne du ko fecc fas na kanam nga te nee na ko su ma la nee puusal waaw bu ma nee puusal da ngay puus maa la ëpp doole waaye rëg Eumeu Sène daf ko doontu uh, uh, ne ko maa la mën maa la ëpp doole wax jooju Eumeu Sène wax sax man rarement rarement laa gis waa gëj na waxee noonu waa Eumeu day wax di ree mais démb dafa àllu ah bi tafaatin jógee taxaw ne ko dama bu leen la ngay puus que maa man maa la dàq bëre ëmma dafa mel ni boobu dañ koo jam affaire saale yooyu ngay def di kii di jam la nga yooyu moo fi jeex dafi da ngay ñëw ma daan la nangam loolu dafa am lu mu refee ci Eumeu Sène waaw parce que waaw dafa am lu mu refee ci te xam nga nag Eumeu Sène ku ko xam-xam ne boo ko jamee mm. Eumeu Sène balaa bëre bëre da koy jam ba noppi combat am yu gën a métti boo ko jamee ba ñu naan pare na ci la Eumeu Sène di gën a métti te bii bu ko jamagul kurpeñ nit da koo jam ci wax waaw da koo jam ci wax da koo jam ci comportement parce que nee na ko bëri wax maa ngi dégg ngay wax rek da nga bëri wax la mën si euh, si euh, signature si ay VIP de dañ ko am ba pare ànd ak di discipline parce que xam nañ ne euh, di kii def kenn amul droit laal kenn loolu tam mbëri mbëri waaw ñoom kenn laal si kenn wax waxante nañu mbéy ak lu mu tëgg beneen maa sax la a ne naan leen non dafa waroon bàyyi Lamine boobu wax ji moo neex la bëggoon mu parce que gis nga li li Mbayang di wax dafa am lu muy def dafa ko Tapha Tine ñëpp ay ay séeréer lañ bu Mbayang di wooyee dafa am tax wooy yoo xam ne ah. ñoom ñaar mën nañ wàcc pla kii bi am lu ñu mel te loolu dafa am lu yokk moo tax bi Lamine naan ne ñëw leen xam naa Lamine moom mu wax ji la bëgg coow la ak matière ba ba ngay xalaat matière ba waaye la ci suuf li Mbayang du def noonu ci la bokk waaw ci la bokk da ci am solo mais nag am na lu mu wax tout le temps mooy bëree sa ñoom ñaar bokkuñu âge ak loo mën a dégg gis nga Babacar quatre-vingt pour cent yi mbër yi bëreek Eumeu Sène bàyyi nañ làmb seetlu ko waaw boo ko jëlee équipe nationale bi Eumeu Sène di ñëw équipe nationale en 1999 euh, Saliou Diouf njaaj man la fekk ba ba bëreetul Zallo bàyyi na làmb Moussa Ponto bàyyi na làmb Yaxya Diop Yékini bàyyi na làmb boo ñëwee ba si même frappe bi ñoom Jallo ñooñu ñoom ñoom ñoom Boy Kayre ñoom ñoom ñoom Mbodji Diagne maanaam ñu bëri ñu ñu ñu ëmb seen bëreel bàyyi nañ làmb. est-ce que ñu waaw mais mën am mais dafa am lu muy wone dafa am lu muy wone mooy mu seen peut-être mu ngi mu ngi ver la fin mu moom la tout le temps 45 ans mi 2024 la koy am si si kayit si la am 45 ans mën a ki xale boo xoolee 22 ans 25 ans de carrière la am ëppale na que les 17 que les am di di 17 ans de carrière. maanaam boo xool di di 18 ans ko 18 ans la la Taphatine am kële am 25 ans 7 ans la ko la ko jiitoo mais mais da koy da koy bëree bëree la Taphatine di def ak bëree la Eumeu di di di parce que nag Taphatine euh, Eumeu du du du du toog di def naa du taxaw taxaw taxaw muy laawanteeg moom di dóor. que Taphatine na njool yu bëri. waaw mais njaa daani du la dóor ba nga tëdd da lay woo ci xeex indi indi bëri. waaw dama ragal ne loolu lay def Tapha Tine woo ko ci xeex bu bu Tapha Tine juumee lu mel ni lu toll nii rek de de ko mën na ko mën na ko mën na ko exploité Tapha Tine nag xam na xam na fan la jëm parce que dama naan Eumeu Sène amatul lu mu prouvé ci làmb euh, euh, Babacar maa doon roi des arènes maay deuxième auditeur u Pikine bi indi couronne bi Pikine man maa man maa man maa dégg champion d'Afrique man maa man maa dégg euh, naka la tudd euh, champion ANPS 2017 2018 Eumeu Sène amatul lu muy prouvé daan ñu mu daan ñëpp. Balla Gaye deux fois Bomba Dieng deux fois Lac de Gris Bordeaux amatul lu muy prouvé Tapha Tine nag moom moo war a yegg au sommet kon dama jàpp ne bu gën a motivation bu amoon tey ci Tapha war a ëppee parce que moom moo am di ci lu lu mu amagul te kii am na ko ba bàyyi ko. waaw do donte nag Eumeu Sène waxagul kenn ba bàyyi naa la yàlla te musculation bi dafa am ñu la di may âge bi lu mu kii waaye ni mu toll mu seen taayam ak ni mu mel dafa am dafa di avantage ci moom waaw avantage am na solo abu looy tàggoo internet yi waaw di gërëm ñëpp sëñ Babacar di nuyu ñëpp di la nuyu di nuyu suñu caméraman bu bu ñaawul bi léegi muy Mamour di nuyu internet ñëpp encore une fois di leen ñaax ne leen nañuy faral di gën a abone waaw incha allah jërëjëf kontaan na agasa am na solo abu mel ni kon loolu lañ leen doon jàngatal tey dégg ngeen ni ko abu waxee la ko commencé ci Bombardier bi ñëw ci mbapat bi ba ci face to face bi encore une fois yaakaar naa ne ñaari mbër yi démb sofe nañu effectivement li abu wax dëgg la man ba Lamine naan kii tamit xam xam naa ne lool loolu mu bëggoon laa bëggoon mooy wax ja matière ba parce que ñun yooyu daf ñuy intéressé waaye mbay ngi tam la mu doon wax daa mel ni comme sa ba kuma mbayang commencé rim mu commencé yëngutu te bu continué woon tafaatin de yëngutu te bu a ca suuf lañ jëm si yaa moo tax ma yaakaar ne Baye Ndiaye daal juumoo xam euh, juumut gis nga phase euh, combat euh, Yékini Lac de Guiers seen face à face ba 6 yaa ko xam nga bi bi ni jógee dafa am dafa am woy bu bu mbayang yëkkati mu ne ko noonu nii la ko def mu ne du boobu naan ko yaxe jo ba jaga kaamil boobu mu yax mu ne ko du boobu waaye ba mu ko woyalee li mu ko war a ne ko waaw bu jóg ba mu ko woyalee ne ko làmb jot na jangi ñala la yaxe joob ci champion bo waaw champion njoma fada jangi jangi ñala la ci champion bo yaxe joob ba mu jóg ne ko boobu la bu jog mm. dafa loolu dafa am lu muy def ci mbër ñun ñu dul mbër sax ñun ñii sax léeg bu ñu demee seetaan làmb wooy yenn wooy waaw yenn wooy dangay ngay bëgg a sa yaram day non non force la yooyu tamit loolu boobu nag ba fa yeggoon ceeb ci Eumeu Sène ak Tapha rek ah boobaa boo matul daañu estrade bi daañu wàcc de daañu njuug déjà mais dërët ji day day day gën a gën waaw waaw. am na solo kon làmb suñu cosaan la yaakaar naa ne loolu mooy li ci neex cosaan boobu ñu woy la lal la foo xam ne lal nañ say maam lal sa deret lal sa giir ga nga bokk nga yëg sa bopp yëngutu loolu mooy làmba muy loo xam ne yëf yi jàmbaar la danañ folo nag waaye ku daanu ruus waaye bu bëggee dëgg-dëgg ëmm seen tafaatin maa leen ko wax pour ma gis làmb ju ko nar a dàq ren du ma ko foog ndax yaakaar naa ne ni ma gisee ñu waxe ñoom ñaar kenn du ci triser ci biir bëre déet déet te du ñu moytonte waaye nag kon encore une fa Baye Ndiaye la ñuy félicité aussitôt di ñaanal promoteur yépp ku ci ne rek li nga sum yàlla na nga ko yeggale ak jàmm parce que ren saison bi incha allahu rabbi ni mu desine woo ah am naa yàqin ne daal mm, bu ci cat duggul incha allahu rabbi léppay baax te incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla cat bañ cee dugg ndax yàlla moo ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen kon maa ngi bëggee ñëpp wala ñoo ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daj rek ci yeneen yoon di nuyu nag waa sen ndax lii ma sol ñoo ma ko jox les Mamour sol ñoo ko ko jox kon abu gars yi ñëw leen jox abu yéen itam <laughs> loolu daal la demee keroog daal lañ dem Pader Sène gars yi tànnal ñu li gis nga lañ ma tànnal ensemble bi gis nga Mamour tamit fañ ko génne woon waaw yaa ngi dégg la vie est comme ça kon gars yi amuñu seen fay waa Pader Sène gépp kon ba beneen yoon insha allahu rabbi yer waa goy jabar wan jabar wan nga xejataana way leen lamb ji a dégg ko way yer jabar wan nga xejataana ak lu mën a xew daal Mamour nañu way lamb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 melal ni Messi booy football mbaa Ronaldo mbala Sadio Mané buy bëre tamit mel ni dina noppale de des fois.